seet na sama oto sama oto sama ko seet na ah daa war a seet de nee naa ko ci laa war a teg yaa man lu baax nag yaa yas góor nag tubaarkalla maa sha Allah yaa man lu baax rajo ju la sëriñ mën a def rek tubaarkalla maa sha Allah delloo ko yaa man lu baax respecté taalibe yi yaa respecté dongo yi lu seen Abdou Karim ne yaa ci man ñëpp waaw waaw yow du dàppoo ay suuf ay ay ay kaw la nga bëgg. dëgg la de njabootu Cheikh Abdou Karim yëpp nga téye leen. waaw waaw njaboot gi kenn mënu bu mbaagee kase la jam ko téye xel yëpp rek ndindi lay dem. waaye bu xale ñëwee ndindi xale dem Cheikh Abdou Karim waaye bu heure añ jotee heure bii bu jotee xel yëpp dem soxna Faat bi. soxna Faat bi kuy jaaraam bii. jàmbaar jàmbaar yàlla yàlla guddal soxna Faat bi kuy jàmbaar waaye nag gis nga Modou Mbaye waaye Ismaïla Mbaye Modou Mbaye man sama yaram daw na a ah, xam nga ma dawal sama yaram dawal sama yaram xam nga moom daa fexe tabaarkàlla waaw ba taaliba yi sëñ kërimam waaw tabaarkàlla mu tekki loxo waaw tabaarkàlla lu sëriñ am nga téye ko njaboot di kenn narul lu sëriñ sëriñ Abdou Karimam waaw fa tabaarkàlla sama fat bintu guy jërë ñëpp yàlla yàlla guddal yàlla yàlla guddal sa yaa yaa skor yaa mën lu baax yaay nit ku baax yaa fonk sa yaa mën lu baax yaa bëgg sëriñ yaa mën a sagal sëriñ yaa fonk sëriñ yaa mën a sagal yaa bëgg taaliba yaa mën ko dongo yi yaa mën ci yaa ci tooy yaa mën ci màggal yaa mën ci lépp ma jàpp fara ma mayal booli ñëw mayal mayal mayal booli kañ lay jeex mayal booli kañ lay jeex la kat booli ñu booli bu ne seen waaw waaw booli yi lay lay la sama fat bintu kuy jaaraam bintu kuy jaaraam waaw waaw soxna fat bintu kuy jaaraam waaw waaw waaye soxna Fatou Binetou Pouye nii nga def soxna Fatou Binetou Pouye jaaraama déedéet sama xol seet

baax yaay ati wala ca biir bi may

buñ ko yee xam ngi yaa ngi koy jël soxna lëndëm nay leer rek la bëgg moo ngi nii xoolal nay leer soxna Fatou Bintou bu lëndëm nay leer naaj ak ci lii ne lay màggale teral gani sëñ Fallou yi rek. yëkkati day leer bëggul lëndëm xam nga zi zi leer rek waaw waaw xoolal lii ay zi la mais xoolal fi mu ne di ko def ku mën na def rek moom ngi nii rek lii rek da ah, ah, ku may dimbali ba waaw mën naa def des na dafa des na ñëw rek waaw dafa des waaw waaw bu saabu waaw ah ji mi ngi ñëw mi ngi doon kii wax mi ngi ñëw baax na bu dee kenn dëggal benn mu tiim fleur bi waaw dem waaw dem waaw mën dem ba mën na dem ba sës foofu mën na dem ba waaw ah nit ñi waaw mën nañu ko jël ci kanam bu mag